raxmatullaay soxna jaara raayaw ngëneel wacce diiwaan ya faam sa dooma yor lépp yow maam waa mulku ak malakoot ak piyi arasi sax arasi Cheikh Bamba lañ daa safoo yaa jaaratulaay turondo yaa doonu saw turondo yaa doonu saw turondo Mariama yaa ko fi roy yaa seere kun fa yakoonu jaaratulaay soxna jaara seen yaa bari ay yaa amit jërëjëf yaa boole baatin wa zahir jaaratulaay yaa doon Aminatin yaa doon Asiyatin yaa doon Fatimatin maam Jaaratulaay yaa boole ay ndam ca biti yaa matoroy di xëñ sa faw jaajëf Jaaratulaay soxna jaara yaara fitub juddu yaa dis te yaa ami may barkeel nga selli cosaan mam jaaratulaay soxna jaara yaataaru yaata be am tiita te deesu la xas doo tooñ te deesu la tooñ jaabur ngir billaay yow yaa dëddu duniyaa ji daawoo xëy di waaj abadan du alal yaa sawar bay rooti billaay sa xab yaa tax ba réew yi xeb sa fi dex sa ndaay fees yaay taraawoo yi na maam jaara danga waa yaatu am ngor am teraanga jumat xam yàlla xam yi la jaajëf jaaratullaay soxna jaara muñ nga muñ kat nga doom mer sawar telefon njaxlaf nga maanu nga yaa mat jaaratullaay soxna jaara yaa sàmm yaa jaamu yàlla Mustafa ci lu wér ko réew mi jaaratulaay soxna jaara rafet rafet ji ko man boppam di togg lu doy doo sakki xejje kii seen yaa jaaratullaay day boole topp ndigal ak topp ab sëriñam ak topp yàlla bu wér maam jaaratulaay yaa boole fulla ju ànd ak ak la ca ak xel sotti mu sellal jaaratulaay jigéen ñi war nañu laaroy di xeñ sa mboor ci lu wér te xeñ say jikko ya ndax muy jaaratulaay ñaanal ma man sa sët bi tudd aminatin ma sax ci rey la bu wér maam jaaratulaay yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul yaa man lu kenn mënul maam jaaratulaay yaa gis lu kenn gisul yaa xam lu kenn xamul penkook sowoo ñëpp naa waa cey jaaratulaay yaa jur ku kenn jurul yaa jaar fu kenn awul yaa raw rawaale nu jaajëf jaaratulaay yaa àgg àggale saw askan ba àggale farluy nit ku ñuul ak ku weex yaa jaaratullaay mam jaara yaa jara way giñ naa ni yaa ami may yaa sell yaa tax nu sellal jaaratullaay jaara ma mam jaara jaaratullaay sa doom a gën ñëpp ñëpp si gil gën ci wolof mu gën ci réewi arab asak marakiis wa baxdaat jaaratullaay jaara mamaam jaara ñaawoon jortu daawula jëw doo janni doo rambaawa siisoo añaanoo te ndaawoo boddi doo gedde far deggil na yaanu ko an yaa jaaratullaayi ak mokko ak nooy di wax faf dëgg yaanu ko wan daawoo werante te ko xuloowoo mam jaaratullaayi soxna jaara daawoo werante ko xuloo jaaratulaay semal nga ñel di yawoon boobe ci yëpp anam saay nopp nga jël nga leen maam jaaratulaay soxna si yaayoot teraanga ji fii dunya wa axiriti siggal nga suudaanu ak bi daanu billaay siggal nga mbàkkeek bu soobee yëpp doomi wala bawal bawal ak ajoor naa jaaratulaay yaa tax boo doomi wala fii denc ay million te seeni maam musu ko gis jaaratulaay tabaarakallaahu fii ak sa sëddi nga am ci mbàkke ak ci musoo bee jaaratulaay maam samba mariam malam wax kenn dootu ko wax am tan li man jaalaa doon way wa billaay mooy maami aminatin mi lu way ne leen amin ak barke yokkunu gëm ci say xunaa may nu ab cër jaaratulaay mam jaara noo ngi dagaan sa cant noo ngi wayaan ci yow ab cër na ñu tibbal jaaratulaay soxna jaare naddil nu siddu nu tibbal nu jox nu noo ñi nu am noo ngi xaaraan fi yow maam jaaratulaay doom laa te laa fi sa dib géwél di la way sa giir gaay may may jaaratulaay tibbal ma ndab lu rëy loo xam ni ci xaj bokkal ma mbooloo mi ak seen bool yi lillaahi si na gëm yi yokk te mun yàqooti abadin mursa gi yokk te pusi fi yokk te sax di jaamu bu wér tey sopp alaaji falulaahi lillaahi tey sopp Subani man jamaratullah Subani man jara ya jara way jara ginani ya amiman waaye loxo ci kaw ñu màggal soxna jaara ku bëgg a dellu si déwén sa ñaar loxo ci kaw ñu màggal soxna jaara أسل أسل يا تنزل سل الجارة الله نسيما جار يا جروي يا جروي جنان يا أميم يا سل يا تنزل الجارة الله sell yaa tanu sellal sellal jaam alhamdulilah na ci man jaara yaa jaara way yaa jaara way ginnani yaa andi ma yaa amina yaa sell yaa tanu sellal jaaratulah na jaara yaa jaara mu sabale nani yaa yaa sell yaa tanu sellal nasiman jara ya jaraway ginnaan ya abi may ya sell ya taxu sella jaratullah jara ya jara bu sabale sabale ya sell ya taxu sella jaratullah nasiman jara ya jaraka ya jaraka yëppin waa bu di ñëw ngir jaaratullaah bu sabale benn ajire waa bu di ñëw ngir jaaratullaah asi man jaara yaa bi waa bu di ñëw su bis bi mel ne ni aj yëpp waa bu di ñëw poroxaan ngir jaaratullah garasulullah la aradu may agalu poroxaan jaaratullah na ci guddi gi rañaan garasulullah dem na aradu rasulullah ba ara ma ala moy dulu qaraha mudaratullah ajara bismil illah maju man la ilaha illallah sabti ki ki dul ya jaratullah bismil illah soxna jaara bismillah ma ñu woo

Jaratullah sunu ma sunu ma Maryama jaratuna sujaaratuna yaa doono Mariama yoo maam jaaratula aleykum sujaaratuna yaa doono Mariama yoo maam jaaratula usbal izaab no Mariama ruula Jibril ñoo ma yoo ko woon jaaratula سمتر يا جميل يا جليل وفضل خل يا جميل سمتر يا جميل لا يخلنا الله يا جميل سمتر يا جميل يا جليل

jar siyaare man jaara wàcc na musu bu day def la ko war ci billahi billahi bamba lu doy Yeah. مكان الخلاف بالله بيتنا خير خير ما mu sabali na leen siyaare ji dem siyaare ji dem siyaare ji maam jaaratullah بتبادل سيارجنا السيارة ممارة الله وسبل مم سوالو غنا لرجل لرجل نوا poroxaan moom jaaratullah mam moraal soxna jaarale sëriñ Tuuba na Tuuba mbagge mam asawaalo nga naagal dergo jolli na leerata waa poroxaan moom jaaratullah mam moraal soxna jaarale jaaratilaa ku sabali mam asawalo ganaawe ergo jolli elana dawa poraxaan o jaaratilaa maganaawe warata poraxaan o jaaratilaa mam jigéen ñu mboyal naanu bay palinde mboyal naanu way ba dinde maam jig booyal naanu mariama jël naanu jaraama maam jara jigéen ñi booyal naanu bay ba booyal naanu jaraama maam jara jigéen ñi booyal naanu bay ninde mami Cheikh Mountakha mami Cheikh Mountakha Mbacké jigéen ñi boyal na ba ninde

fujura Yalla

abadan yaay borom Tuuba ay samaan mu sabaay ay samaan mu sabaay abadan dama ko dimbal ak yërmande saa yi batin seen ko dama gëdd koy ñaan ba abadan ay borom Tuuba babaay sama Sëriñ Basiru ay sabaay mu sabaay gën maam dimbale ki yor benn koy ñaan ba ba ay borom Tuuba yo bambay sama basira mo sabay mo sabay ay borom Tuuba kam do ko dimbale ki yor benn koy ñaan ba ba ay borom Tuuba yërmande yërmande lu ngi la koy ñaan amoon na borom Tuuba ilaaha la la